وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi ñi ngi leen di dénk ngeen ragal seen boroom seen boroom boobu nga xam ni nee na moo leen bind yéen ñëpp ci benn bakkan mu bind te soxnaam sa génne leen ngeen nekk góor ñu bari ak jigéen ñu bari ngal la way ragal leen yàlla ñi nga xam ne ci turam di laajante te ngeen ragal yàlla ci mbokk gi mu doxale seen diggante te xam leen ne seen borom yàlla day mi ngi leen di fuglu ay di leen garde di leen seetaan muy arraqib inna allaha kaana aleykum raqiba loolu moo nekk mbokk suñu xutba tey mooy xel suñu borom ci li nga xam ne nii noonu la nekkee ak ñun mbokk julit suñu boroom mi ngi ñuy garde te loolu bépp julit boo xam ne saxal na xam ne boroomam subhanahu wa taala kat mi ngi nii di ma gis di ma dégg di xam li nekk ci samay biir xol lii ma déglu lii da ngay gis dafay doon loo xam nii da koy mu muy bàyyi xel boroomam ci ay xalaatam waaye bàyyi xel boroomam ci ay waxam waaye bàyyi xel boroomam ci ay jëfam suñu borom yàlla nee na xam leen ne lépp loo xam ne yéene ca maa leen cay foglu mi ngi ànd ak ñun fu ñu ma fu ñu mën a nga xam ne day wor ci bëtam ñi mu mu ne xam naa ko xam la nekk ci biir dënnam looloo tax ba mbokk sa jaamu yàlla du mag sa jaamu yàlla du kawe sa jaamu yàlla du fel lu dul nga bàyyi xel sa borom boobu nga xam ne dara doxul sa digganteeg moom loolu tax jibril alayhi salaam ba ko yàlla jëlee jox ko melokaanu nit mu ñëw fekk yonent bi sahaaba yi wër ko mu ñëw di leen seen base diine seen fonk diine mbokk ma lu ko jibril laaj ma muhammad lan mooy jaamu yàlla bu ñu rafetal suñu yeneen bi alayhi salaam ko mooy ngay jaamu yàlla comme bu te ni yàlla daa nekk koo xam ne yaa ngi jàkkaarloog moom waaye bu dee loolu amit nga xam ne yàlla moom mi ngi jàkkaarloog yow ay kon foo mën nekk nga yëg ne yàlla mi ngi jàkkaarloo ak yow yàlla mi ngi xam ñi nekk ci yow yàlla mi ngi nekk ci yow lii ndox mooy tax mu dox sa digganteeg bakkaar yi ndax kii nga xamee ne nii kat moom jàpp nga ne mboolem liy xéewal ci moom la jóge su ko neexee nangu ko su ko neexee yokk ko waaye mboolem nattu mucc ko bu ma mën a dal moom dong moo koy joxe ndigal su ko neexoon wàcce ko ci man léegi bal su ko neexoon sax faat ma léegi mbokk ko mel noonu boo koy bàyyi xel dana dox sa digganteeg lam araamal nga dox fa looloo tax ba borom xam-xam yi dañ naan jaamu yàlla gi gën a màgg mooy ngay am yëg-yëgu sa borom foo mën a toll ku mel ni imam Shafii rahimahullah daan wax ne teddaa ngay mbir yépp ak ñett la bi tabe même jamono bi mu yore lu néew waaye lu loolee mu mën koo bokk ak nit ñi mooy heure boo wéetee nga daal di fegu la a def ca kanamu nit ña boo wéete it dara la jaral nga def ko ñetteel ba ngay nangoo wax dëgg ki nga xam ne yaakaar nga ne sax moom mën na laa jëriñ wala yaakaar nga ne mën na laa lor ci doomu aadama yi dund teewul nga mën koo wax dëgg mu ne lii day da gis ne fii la gën a tedd ci lu julit mën a nekkee la ay yéen xam leen ne képp koo xam ne dafay jaamu yàlla ci fuglu ga ko yàlla yi fuglu fokk dana bàyyi xel tur yi yàlla feeñeel ci ab téeréem mook suñu borom feeñ nañu ci tur yu bari ne tur yi gën a rafet man la ñeel dere ma woo ci tur yooyee moom la yonent bi alayhi salaam doon wax ne ku ci wattu juróom-ñeent fukk juróom-ñeent da nga dugg àjjana wattu boobee na gën a mat lu borom xam-xam yi na am mooy nga xam ko waaye xam maanaa ba jéem a tënku ci loolu masalan tey boo ci yow da nga bàyyi xel turam boobu mu tuddee mooy aji fuglu ji turam bi mu mooy aji wattu ji turam bi mu tuddee alim mooy ki xam lépp turam bi mu tuddee samia mooy ki dégg lépp turam bi mu tuddee basir mooy ki gis lépp juróomi tur yi képp ku koy bàyyi xel loolu la ngay gis fokk yàlla dana la wërsëgal la nga xam ne moom mooy al muraaqa boobu nga xam ne mooy al ihsaan mbokk suñu borom yàlla mooy raqib comme ni nga koy waxe sànq mooy ka nga xam ne muy fuglu mboolem lum mën a doon amul luy xew ci kaw asamaan yi wala kaw suuf lu dul yàlla nga koy seetaan lu dul yàlla nga koy mooy tax ba yow nga xam ne yaa nekk ca kees ga na am contrôleur nekk fii directeur bi nekk fi waaye yaa ngi yëg nag sa borom yàlla mi ngi fi yéen ñi nga xam ne yaa nekk ci bureau bi say chef nekkuñu fa waaye kii ñëw bëgg laa ger yaa ngi xam ne sa borom yàlla moom mi ngi fi loolee moom ngay topp ba mbokk lépp lu mën a doon nga xam ne heure boo wéetee nga la waay bul wax ne wéet nga mukk waaye xamal ne yàlla subhanahu wa taala mi ngi nekk di ànd ak yow ci loolu gannaaw boobu tur boobu suñu borom. feeñu ay jaamam ne mooy alxafiis mooy kiy wattu day wane ne mooy wattu jaamam yëpp dara du ko rëcc ci ñoom doonte ne mooy wattu ay jaamam ñu ko jéggal ci dox seen digganteeg bakkaar yu mag ya waaye mooy wattu seeni jëf ay moo koy wattu ci xam ko waaye moo koy wattu ci denc ko amul lenn looy jëf ci lu baax lu dul yàlla dencal na la ko dara du ci rëcc bay wax subhanallah bul konté alhamdullah bul konté wax waxal lu la neex waaye xamal na lo wax ci lu baax lo def ci lu baax dara na ci lépp yàlla ngoy def naka noonu nit la ngay wax ci lu bon dara na ci la ngay def ci lu bon dara na ci loolu tax ci bi ali sallallahu alayhi wasallam dan din ci ndawi sahaba ya ihfazillah yahfaz degen wax ni yàlla yàlla wattu len mbokk yàlla ni ngi koy waxo moy xol ay ndigalam ñu taxaw ca suñu kéemtalal kattan xool ay tereem ñu ragal yàlla bàyyi xel yàlla bàyyi ko lii day bu buñ ko defee suñu borom yàlla subhanahu wa taala fokk dana doon koo xam ne nii dana ñu wax borom baa ngi bàkk ay jaam di tagg ay jaam yoo xam ne nee na dafa jënd seen bakkan ak seen alal ndax àjjana moo leen nar a ñeel loolee lam leen bàkke mooy dañuy sax di tuub di sax di jaamu yàlla di tax ci ñoo xame nga nii dañuy sant yàlla doom yi rukkoo ak a sujud di déglu lu baax di tere lu bon waaye soroñ borom mu ne wal xaafizuuna li xududillah wa bashiri lmuminin foo leen fekk dañuy xool lan la yàlla rëdd ci ñu war def daañ ko def te duñ ca jéggi dayoo lan la yàlla rëdd ci ñu war koo bàyyi dañ koy bàyyi mi ngi noonu duñ ko jege li dañ képp ko xam ne def na ko sa fay mooy yàlla dana la wattul sa diine wattul la sa adduna wattul la sa alaxira yàlla na yàlla defal ñu ko mbokk suñu borom yàlla gannaaw loolu ñetteelu tur boobu nga xam ne moom mooy mi ngi noonu suñu borom yàlla subhanahu wa taala mooy lépp lu mën a doon ndax xamal ne doomu aadama dégg bii ngay def yàlla moo la ko may ansha lahum sama wal absar moo la may ngay dégg kon kay laa sakk ne mi ngi lay dégg moo tax ba doomu aadama bi fu mën a toll day xam ne yàlla ku ko jege la yàlla ku koy dégg la suñu borom yàlla ni dana yemoo ci man ki nga xam ne dafay yenoo ay waxam ak ki koy wax ci kaw te gëm gi ngeen gëm loolu moo tax su ngeen sujuutee képp kenn ci yéen di wax ak yàlla loo xam ni ki suuf si moom dégg ko waaye day am yaqin na bi mu tegee jéem suuf naan subhaana rabbiyal aala sell ñeen na suma buur bu kawe bi wóor na ko ne yàlla ma nekk kaw asamaan yi moom mi ngi koy dégg loolee kon mi ngi noonu borom boobu subhaanahu wa taala ne ka bàyyi ba biir guddi mu rocceeku ak ka bàyyi digg mu génn ñépp di ko gis nee na ñoom ñépp ñooy na nga xam ne ñoo yem ci man lii moo tax ba borom boobu subhanahu wa taala ni man kay wattu boole ko ñu koy wattu loolu wala siitloo ab jaam yaakaar loo ko moo tax suñu borom ni képp koo xam ne yàlla dafa namm ci yow musiba amul kenn koo xam ne moo lay mën a féetewoo waaye gannaaw da nga déggee ne yàlla mooy dégg lépp ngar la waaye kon moo tax bari say ñoon سي برام يالله سبحانه وتعالى اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه داع اذا دعان ما نجي كو جيغي دي وي ادي نيان اور بو ماي نيان تي خامني موي سميع الدعاء يالله موي دغ لاغا خامني موي اي نيان واي جي نغا خامني سي برام يالله مي نلاي غيس سي برام يالله سبحانه وتعالى موي كيغا خامني ني لپ لو نيك يان كوي غيس جامونو بي ني ركو بي ني jamono bi ngay yëkkati say loxo jëm ci moom waaye amul lenn loo xam ne ci kaw asamaan yi kaw suuf la lu dul ne borom boobu subhanahu wa taala mi ngi jàkkaarloog moom moo tax ci moom rek la ñu war a wékku mu ne wa tawakkal ala al aziz arrahim alladi yaraaka xiina taquum wa taxallubuka fi sajidin innahu huwa alsamiu alalim ay yow mi nga xam ne da ngaa bëgg rek koo wékku na nga wékku ci ki nga xam ne mooy dégg lépp ki nga xam ne moom mooy gis ki nga xam ne ba nga rokkee koo xaaju guddi sa sa soxna bi nga nekkal yëgu la wala sa borom kër bi nga nekkal yëgu la sa borom yàlla boobu nee na maa ngi jàkkaarloo ak yow comme na ma lay gisee ba ngay wëlbati ko ci biir mbooloo ma moom mooy kiy gis mooy kiy dégg lépp mbokk heure boo xamee ni yaa ngi bàyyi xel ci li nga xamee ni nii moom mooy juróomeelu tur bi di li nga xam ne mooy al alim te mooy nga xam ne su borom yàlla kat noonu mu boole gisam ga ak diggam ga noonu la boole xame lépp doomu aadama mën na laa gis mën na laa jéggi te fekk du xam li ngay def wala du xam li nga nëbb waaye suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne xanaa xamoo ne yàlla subhanahu wa taala xam ne lépp lu nekk ci kaw asamaan yi ak suuf loolu lépp suñu borom mu ne denc naa ko ci ab téere te loolu lu yomb ci yàlla la gannaaw ba mu ne xanaa xamoon yàlla xam ne lépp lu nekk ci kaw asamaan ak suuf amoon ñaar ñu dëgg cib néeg di deeyoo lu dul yàlla moo leen ñetteel amul ñett ñu nekk cib néeg lu dul yàllaa leen juróomeel amul lu gën a néew wala lu gën a lu dul yàlla mi ngi ànd ak ñoom ak fu ñu mën a nekk yowmal qiyaama mu ñettali leen la xam ne moom lañ doon def ndax yàlla subhanahu wa taala lépp da koo xam ay yow mbokk jurit heure boo xam xam nga lii da nga doon koo xam ne nii da ngay bàyyi sa xel ci place yi heure boo xam yaa ngi wax yaa ngi bàyyi xel ne ah man kat li ma nar a wax lépp kat yàlla nga koy dégg waaye heure boo xam ne nii yaa ngi doon koo xam ni da ngay jëf da nga bàyyi xel ne ah man kat lépp loo xam ne maa nga ci yàlla ngi may jégg bal bu dee da ngaa wéet yow waxoo jëfoo yaa ngi toog sa xel war naa jëm ci yàlla moomu nga xam ni moo xam li nekk sa biir xol nga jokkoog moom jokkoo xol moom la yeneen ci bi alayhi salatu wasalaam doon wax wa rajulun zakara allaha xaaliyan fa faadat aynaahu mooy ki nga xam ne daa wii toog daa di xalaat la nga xamee ni ni mooy digganteem ak boroomam lu néew ci jaami yàlla di def tey am na benn vidéo ba xale yi circulé ci biir whatsapp beeg mi ngi ko mi ngi ko tuddee isole toi naam isole toi mooy chaque jour nga la waay yow julit del wéet ak sa boroom di xalaat sa diggante ak sa boroom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne wéet naag boroomam xalaat ak boroomam yëg màggaayam yëg yërmaandeem yëg ay mbugalam ba loolu yóbbu mu tur ay rangoon nee na ko mel nii de dana bokk ca nit ñi keral a qiyaama bis bu doomu aadama yi nekk ci ay coono yàlla yàlla boole ñu ca mbokk suñu boroom yàlla subhanahu wa taala la nga xamee ni moy yig yëg ñukoy yik tax ñu ragal ko yemele digënté mbolo mi biñu wété wéetee yonent bi salam wax na ben wax bu tiitlu nee day man xamna mbolo yu dox sama xeet dal ñoo yoomal qiyaama ci tiyaba yo xamné day sol na ay montagne waye ñoom day ka ñu ñu sawara lañuy bok bokk ki nga xamné moy sawban sawbaan di sahaaba ba ko fekke won da ko ay yéen yàlla yónni di ñooñu mooy ñan waay mu ne day ñooñu la nit la ñu bokk sama yor seen làmmiñ yéen di wax sax arab ni ngi noonu te loolu ci gën a yéeme doon di ñoo xame ni nii dañuy jëf lu bare bare bari ci tuyaaba waaye nag ma nga ci kanamu nit ñi amma heure bu ñu wéetee daal di commencé xotti la yàlla subhanahu wa taala ku mel noonu mbokk jaamootul yàlla nit ñi lay jaamu loolu tax ba nga la waay nañu góorgóorlu bu ñu wéetee ñuy bàyyi xel heure bu ñu tukkee fu ñu kenn xamewul ñuy bàyyi xel bañ a jaawale la nga xame ni nii mooy jaamu nit ak jaamu borom bi sooy jaamu borom bi nit ñaa ngi fekk nekkuñu fi ngay yemele amma booy jaamu nit ñi nag moom su boobaa say jëf mën naa bari say kanam amma heure boo xamee ni dangaa wéet di xotti war ma yàlla te mbokk loolu du xaar alaxira ki nga xam ne mooy abi dardo radiallahu anhu doon a wax mooy di leen bokk ci ñu xolu jullit ñi di rëbb ñu ne baax ah, loolu lu muy mën a nekk mu ne mooy waajoo xam ne ci kanamu nit ñi day mi ngi góorgóorlu di def lu baax waaye heure bu wéetee ma nga ca la yàlla xaraamal nee na ko mel ni yàllaay sànni ak mbañam ci xolu nit ñi bu ko defee jullit ñu baax ñi dañ koy bañ di ñu xam sax lu tax ñu bañ ko waaye la tax ñu bañ ko mooy la nga xam ne moom lay xotti war ma yàlla loolu kon boo bëggee màgg ci kanamu nit ñi nga la way fexeel ba boo wéetee nga màggal sa boroom sàmm sa boroom su boobaa yàllaay màggal yàlla lay màggal ci kanamu nit ñi mu neex leen ak mu naqari leen lii mbokk nañ ci bàyyi xel bu baax rawatina gën a bàyyi xel yàlla ci suñuy làmmiñ mbokk doomu aadama yi da ngay dajeeg sa moromi doomu aadama yéen nga ca grand place ba sa njaboot la sa ña ngay liggéeyal ngeen di waxal di enforcé wu bañ a bàyyi xel seen borom subhanahu wa taala e moo ñu de yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama dana taxoo benn wax wax boo xam ne nii sunu borom yàlla day gërëm na ko ca moom jàppul sax ne xëy na loolu mën naa doon lu màgg yàlla kontaan ci moom ba yomal qiyaama waaye naka noonu it ngay mën a toog wax boo xam ne yow jàppoo ne wax nga dara suñu borom yàlla mere la ci ba yomal qiyaama kon doomu aadama bi di war a bàyyi xel heure boo toogee di waxtaan ak mbooloo bàyyi leen xel mbokk jullit ci ne tey jii ñeenti ngeen xam leen ne juróom ñetti malaaka ñu ngi leen wër seen borom yàlla ñu ngi leen tiim ñaar ngeen xam leen ne ñeenti malaaka ñu ngi leen wër seen borom yàlla ñu ngi leen tiim heure boo xamee ne nii da ngay bàyyi xel ci li dana doon loo xam ne lu bi dimbali ci rafetal say jëf rafetal la nga xam ne mooy say wax ay yéen mbokk loolu it moo ñuy yóbbu ñu rafetal suñu yéene te xam ne mbir yi nekkul ci rek rafetal jëf yi waaye lu ñuy def nañ ko rafetal te yàlla subhanahu wa taala tax lii day mbokk mbir la moo xamee ne nii heure boo ko rus sa borom subhanahu wa taala waaye rus googu nga koy rus màggal googu nga koy tax yàlla di la mayal cef kam ngëm yàlla jaamu yàlla di neex ci yow lool كم نم نيخ والينين كي بأك الصهابة قول الينين كي الله عليه وسلم لنا نرخ وجعل القرة عيني في الصلاة من دي لنا خم ميسما بن نيخ قل أدنا ميسما تخوي دي جلي سما كان مبارم تجدت عي الصهابة مثلا عم دران وحارفنا بها يا بلاد أي بلال مبدل غدالم نتي بنا دي نيو تخوتي كان مبارم بجنة القرآن ركوكو سجوركو xol yépp daal di fiixaat tiit ya daal dem lan moo ko waral mooy xol yooyu dundoon bàyyi xel seen boroom am naa li ëpp ci nit ñi tey dañuy gymnastique li ëpp ci nit ñi tey seen koor ya ñuy def nekkul lu dul loo xam ne ni ay xiis kese li ëpp ci nit seen zikr ya ñuy def ci làmmiñ ya lay yem waaye heure boo bàyyee sa borom ki sa xol day tax jaamu yàlla yu neex la noo nit lépp lu yàlla gërëmul noonu la lay naqaree heure boo nekkee ci mbir nga xool ne mbir mii kat yow saw xol na ci neex na la lool waaye nga ni lii neexul yàlla xamal ne xol boobu xol bu feebar la loolu tax ba mbokk jurit bi ga xam ne xolam boobu dund na mi ngi bàyyi xel boromam di jël mu ko temps di ko sànq ci loo xam ne ngërëmal yàlla nekku ca loolee ngeen bàyyi ci xel bu baax rawatina jamono ji ñu nekkee mag ak ndaw góor ak jigéen ku nekk am na portable bàyyi leen ci xel la ngeen cay seetaan bàyyi leen ci xel temps bi ngeen cay te bàyyi xam ne lépp loo xam ne yéene nga ca seen borom yàlla mi ngi leen di dégg mi ngi leen di gis amma ki nga xam ne ni dafa dem fàtte boromam di fàtte boromam day dem ba mujj feebar boo xam ne dal ko ci xolam bu kar cardiologue yëpp mën ta faj te mooy feebaru raan kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksiboon te mooy dañuy dem ba xol bi day daal di wow dootoo xamante lu baax dootoo xamante lu bon loolee mbokk la koy waral mooy fàtte sa boroom suñu borom mu ne nasullaha fa nasiyahum ban nga nee ba fàtte yàlla yàlla fàtte loo leen leneen di jëriñ allaxira te loolu mooy pertaange bi gën a màgg yal na yàlla jàppale ñu ci ñu koy fàttali ko fu ñu mën a toll na yàlla jàppale ñu ci ñu koy sant fu ñu mën a toll yal na yàlla jàppale ñu jaamu ko jaamu ko gën a rafet na yàlla bëgg loo ñu yàlla taaral ko suñu xol yal na yàlla bañ loo ñu lépp luy bakkaar lépp luy mooy yàlla ak lépp luy gën ñu topp yal na yàlla boole ñu min yàlla yàlla jëbal ñu jëbal suñu njaboot wàcce jàmm suñu rew wàcce ko ci mbolam rew yi tilit yàlla yàlla teddal mbolam nit islam yàlla yàlla dello ay ak toroxtaange te nga xam ne ñooy yéefar yeneen di fitnal yàlla yàlla rafetal suñu mucce defal ñu addena muy suñu wacce way اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار